ci candidat yi ñu ngi woon ci terrain bi donc euh, mu mel ni amal nañu ko li nga xamante ni mooy ndorteelu campagne bi ci jàmm ak salaam mais bu fekkee ni sax am na ay violence yi nga xamante ni nemmeeku nañu ko ci ban jàngat nga ciy def. non ma njëkk laa beqi violence. <laughs> bon du ma mënuñu jël coalition bu toll ni Diomaye mhm. président la fa xew ci ay kii ñu bëgg ko tuddee violence loolu ma du koy tëbal muy benn ñaar laa ci fekkee bu ci nekk dama naan ñi nga xam ne ñoom ñooy ci geneen gi. ñoom ñooy provoqué. Mm-hmm. te provocation bi mën naa ko mën naa ci dédouaner Amadou Ba nag ak très sincèrement. Mm-hmm. parce que man dama jàpp ne ñooñu rendu ñu service Amadou Ba. te gis nañ ci biir APR ne am na ci ñoo xam ne dañuy jóg ngir yàqal ko man bokk na ci li may wax su rawatina démb dama ne leen faw ñu gën a comprendre enjeu bi. Mm-hmm. xam nga mënul ñàkk ay booy yoo xam ne booy romb see su benn kii fekk seen musique di tàkk nga fecc. loolu yëpp Sénégal. Mhm. daje nañu ak waa Pire. kubbiteel yi mooy bi ñu kii kii bi ci guddi. Mhm. mooy mooy mooy ci guddi. dem nañu coalition euh, euh, euh, dañuy gagné mooy benn genre kii bu mouvement boo xam ne parallèle comme ci biir boo xam day nekk ci biir Diomaye mhm. en même temps di sillonné dakaar ak yenn gox goxaat yi Cheikh Bara Ndiaye si Thiam ak sëñ Mara ak ñooñu ñu nekk forte délégation dem ba yegg euh, booru Ngor jógee fa dugg Wakaam mais bi ñu duggee Wakaam ñan lañ fa gis pire pire boo waxee coalition Diomaye sooy waxaat beneen coalition bu ci topp bu ëpp mbooloo piir ngay wax. Mhm. te foofu bi ñu ñëwee da ngay gis ne ñaari coalition yu jonjonte nañ ci yente voilà ku nekk euh, jaajëfal sa morom ñu ànd dem kon loolu amul jafe-jafe bi ñu xëyee euh, dimanche. ci dibeer ji def coalition bi ak li muy rëy rëy noonu nga ñëw jëm parcelle mbooloo moom ni ñu toll di romb waa APR ci seen siège ñu jékki-jékki gis ay nit di xalab ay xeer am koo xam ne brique lay jël di tëmbal dama kii sama téléphone dafa nekkoon sama biir poche mais dama ko doon jël. Mm-hmm. am na benn waay buñ ci gaañ ak yooyu mais da ngay gis ne gars yi ñun ñoo leen mujj wax yeneen booy yi ne leen nañ leen jël. laata kii caravane bële di ñëw. Mm-hmm. comme borom moto yi ñooy jiitu man sens boobu laay am te su ma ci intervenir ñu bari dañ may déglu. Mm-hmm. maa ne leen nañu bañ a wala ñenn ci ñun ak man ñu ne nañ booy nañ dakkal fii daal di ñëw jaar beneen yoon bi xam nga koo xam ne yow bu ñu xoolee ceeru sa coalition bi niñ toll rek matuñ ñoon ba pare ñoom nekkuñ fa woon comme ay nit yu bari man nga ne bu matee ñaar fukki nit ci la yow. Mm-hmm. kon ñooñu bu ñuy taxaw di xaañee wala ñuy nangam loolu ak ñàkk jom la parce lu lim leen jaral bu ñu ko jaraloon keroog néew dana mais dafa teer vite fait am na ñoo xam ne ñu ngi ko coalition bi xamuñ sax li xew am na ñoo boo leen waxoon violence. Mhm. xamuñ lu xew te man mi koy fekkee nga xam ne chaque fois damay bokk ci ñi koy njëkk fekke fekkee ak yooyu mënuma ko tuddee violence xam nga. Mhm. loolu nag euh, lañ ko tegi daal di dem amal manifestation ba mu kii léegi man nag bu fekkee ne presse bi dañu ñëw bokk ci mbir mi ñu dem ba xëy nga gis journal yoo xam ne loolu la ñuy teg waxuñ la mbooloo mu xumb mi waxuñ la discours bàjjen mi mi waxuñ la kiwin <laughs> euh, bis ma fa way waxuñ la keneen ak keneen ku fi ku fi nekk lu baree bari luñ mën a jàpp. mais xanaa accenté wu ci violence bi bu dee bu démb. bi mais comme li ñuy wax que ni yéen a leen attaqué taal seen i ah, na am na presse yu bind loolu de. loolu loolu moom dama la koy teel wax fii ay kàcc la. Mhm. xaaral Fatou Fambooj ma bañ mu kii ma nee na nee na nee na <laughs> moom moom dama baalu àq maa ngi koy loolu moom du dëgg. Mhm. bu dee bu démb bi it sama kanam. bi am pikin. ma ne man motariste la mhm. <laughs> yooyu bu amee xam nga ne motaar ñooy jiitu. Mhm. te xam nga ne nit ñi miin nañ ci man bu doon li tax nit ñi sax jarul sax may leera lool bu amoon damay taxaw ne nii la amee. Mhm. démb bu yegsi nañ di romb APR mooy seen siège Pikine bi en même temps mu nekk siège AS Pikine ci kaw. bi ñu yeggee ñu fekk seen musique bu xumb di di di te dagan bon ñuy bëgg a ci di pàkkar ci. ñenn ñi mënuñu mënoo di gérer maanaam benn coalition di jaar mais Sénégal lañ nekk fii du terrain sas garde wu kenn ci campagne voilà ci campagne lañ nekk loolu du jafe-jafe parce que mm-hmm. yow ni ngay rombee foofu sa see ni ñu lay rombee yow tamit xaaral na yow noonu ngay rombee wax mm-hmm, mm-hmm. kon su commencé am ay kii man bokk naa ci ñi nga xam ne surtout ña nga xam ne ña foo dëkk nag la affaire bi gën a naqari xam nga bu fekkee da ngaa ñëw ne caravane bi na jaar sama koñ ñooñu danga leen xaw a comprendre ñu jaar sa koñ ñu lay saboote man ngaa am xët-xët waaye saa yoo gisee loolu ñi nga xam ne ñoo ñëw ci biir caravane nationale bi te ne ci biir ñoom ñooy gën a defal. Mm-hmm. ñu ne leen faaw ngeen comprendre bébé Amadou. kan bébé comme buñ ko feralee yàggut ba léegi mën nañ koy wax bébé. ça respecté waay. naa ko mais koo xam ne dañ koo téyewoon di ko kopp koppal ba pare feral ko ba pare dañ koo xonc voilà jàppale ko. Mhm. ba pare nekk ci biir APR di ko saboté. ma a leen faaw ngeen comprendre. parce que ñii ci mhm. seen biir ñoom dañuy yàqal waa ji. dañ mhm. koo tànn ba pare. bëgg mu yàqule mhm. kon moom li koy yàqal mi ngi ci biir moom moo war a wax ak ak ñooñu wala mu xoolaat moom permanence yi muy dem jëlaat nit ñi tegal fa ay nitu boppam bu fekkee ne bëgg naa sori parce que mën nañ cee def dara giñ ko ko mhm. xam nga li daal pire élection 2019 yi mën nañoo def njombe daal ne entre ñaar Pastef nangam ak nangam parce que ñoom ni ñuy am na ci waa kër ñàkk jàmm mhm. ni ñuy yàqale waa Pastef nu ko raw la ñuy yàqale Amadou Ba te moom du ko xam dañ koy infiltre nit ñëw xam nga bu benn nit nekkee ci biir permanence bi ak ay fukki nit ak juróom wala nangam nag moom képp mu provoqué ci yàq. Mhm. loolu mën naa jur lu nekk ba pare mu toog. Mhm. loolu ku ne mën na koo def te gis nañu ne moom ñu ngi ko yàqal. damaa mujj ne waa coalition bi ne leen da ngeen di dimbale Amadou da ngeen di xam ne ñii bëgguñ ko ñi ko seqal bëgguñ ko ginnaaw ñi ngi ko seqal bëgguñ ko nag nañ ko dimbale ci loolu ñun buñ ñu doon xaañ wala di ñu saaga nañu fomp suñu deret. wéyal suñu kii. bañ a répondre provocation bañ bañ leen a donte ne dafa dafa metti hmm. ah moom wax na ko. Ba bu bu bu ah d'accord non loolu nit xam nga nit bu fekkee ne da ngay nit. Hmm. lii tax nga am ndam jël ko. yow bu fekkee ne violence fay violence mënu may ndam. Hmm. maanaam mépris total bañ leen a faale bañ leen a lijjanti moo lay may ndam. mais teel loolu noonu la demee mais. presse bu bind ne violence ak taali oto daa am kooku man saa wolof maa lay wax ne waxul dëgg. Mhm. <laughs> ndax man mi nekk ci kanam. ci yu mel noonu chaque fois ci ci ci yu dem loolu laa ci motaar yi jiitu. Mhm. xam nga motaar yi ñooy xaal. Mhm. kon loolu man lu ma la ci wax war nga ko mën a gëm. parce que du ma du ñaanuma yàlla di wax lu dul dëgg ba noppi ci koor laa nekk. lii daal mooy li nga xam ne euh, maanaam am na mais campagne bi yow yaa ngi wax fàtte. Euh, fële Radisson Blu. Hmm. waaw présentation programme bi. muy koro euh, waaw kay. Hmm. dëggantaan maanaam naal bi le projet bu ay nit xalaat seen ay cadre ñi ki diine ji comme ñoom sëñ Amdi Moustapha hmm. euh, diine ji ba pare nekkaat bu dee moom dafa am yeneen ñaari kii yoo xam ne nii nit koo xam ne li ngay séentu ci ñi ngi yor seeni diplôme mhm. noonu la géejoo ci arab waaye làkk turc te noonu lay waxee yeneen i làkk ba pare boole ko xam-xam kon ñooñu ñu mel ni ay kemam suñu tëjoo dooni ndaw te fii nag ndaw yi rek fi mos def dara nag. Sénégal gii. Mhm. tàmbalee ci maamam sëñ Cheikh Anta maam Thierno Birahim sëñ Touba mii seen mag nga xam ne moo leen fi bàyyi woon. Mhm. at yi ñu amoon bi ñuy taxawal at yooyu la ñoom ñoom ñi am. macha allah kon li ñuy xalaat tey xalaat bi dafay rafet. Mhm. feggoog seen ay yeneen i worom yoo xam ne ña cay chrétien ña cay euh, murit ña cay tijaan ña cay athée yi sax. bu fekkee ne ñu ngi ci ñëpp boolu tëlu tër. ab ab ab ab naal boo xam ne wala sémb boo xam ne nii ñëpp gis nañ ci seen bopp teg ci lu bari loo xam ne gars yi ba xalaat à l'avenir li war a am ci Sénégal muy fa ñu nekkoon tey wala lu jege loolu muy vice président ñu sémbaale ko ci ñu bari sax di ko kii naan waaw dañoo nar a di jamono jooju loolu aussi bëgg naa xam sa jàngat ban gis-gis nga ci am parce que euh, euh, programme bi li ci bokk bokk na ci dindi poste premier ministre def lu jëm ci indi vice président donc boobaak léegi gis nañ ay euh, nit di àddu jëmale ci wàllu woowu loolu aussi yow ban jàngat nga ciy def critique yi nga xamante ni mi ngi ñu ngi koy amal. ñooñu pour njëkk a tëj seen gémmiñ rek. Mhm. mooy vice président dañ koy voté waale. maanaam pour mu nekk da nga koy voté waale. maanaam tey euh, ni nga voteele président bi voté nga ticket lay doon. Mhm. te loolu sax Abdoulaye Wade jotoon na ko bëggoon a def. te xam nañu ne moo gën ci Sénégal dafa am ñaari programme yoo xam ne da ngay gis ne Wade bokkoon na ci li mu doon def ci fin wu mandat mandaam xam ne lii moo gën ci Sénégal. Mhm. muy euh, euh, luñ ko luñ luñ koy waxee te diwaan yi maanaam région yi. provincialisation bi noonu leen koy waxee. Mhm. maanaam defoon ko cette province. Euh, ci wàdd ñii moom tey huit lañ def te huit province boobu boo demoon def que zone euh, ni ko kii carte bu militaire yi yor nga xam ne par zone lañ ko def yaa ngi xool ne foofu huit la huit yooyu boo xoolee kon da ngay xam ne Sénégal noonu la war a mel pour développer. Mm-hmm. kon du tas tasar yi ñuy def Sénégal mooy loolu loolu ñoom euh, xalaat nañ ko. man mu fekk ci programme boo xam ne man liiroon naa ko xam ko beneen bi boo demee ci Abdourahmane Diouf da nga ko fa fekk mais li nga xam ne mooy ticket bi comme ticket la ñu xalaat ci projeté ne dañ koy def Sénégal maanaam mooy ñoom après bu ñu faloo ba pare bu ñu faloo ba pare ba gouvernement bi taxaw moo xam boobaa day am premier ministre comme kii wala sans Macky Sall Macky Sall def na ko sans premier ministre lu mu ci mën a nekk moom ñaar yooyu mën a am premier ministre wala sans premier mais euh, vice président mënagu ci am. léegi nag bu fekkee ne ginnaaw buñ kiyee dañuy dem référendum tër benn tëralin maanaam beneen tëralin bu bees maanaam constitution bi. bu bees ñu teg ci boole ci ne. Mhm. premier ministre dañ koy voté waale kon loolu après askan wi par référendum la ñuy jaar. Mhm. su leen neexee bu boobaa def ko su leen neexu duñ ko def li ëpp ci nit ñi. Mhm. wala ñu jaarale ko par. ensemble te jàpp naa ne référendum mooy li gën a lëw kon loolu ñi ciy attardé wu di jéem a yàq wala yu demee noonu di xalaat naan Ousmane Sonko man loolu mënul nekk. peut-être poste boobu jàpp nañu Ousmane Sonko la tax ñu bu ko doon visé it du léegi yeneen élection lay doon. xam nga maanaam ñu maanaam ñii amuñ sens daal parce que dañ ko seq ak ñoo xam ne dañ leen a gën a xam gars yi dañoo tëru xam réew mi ba noppi ñu yóbbu leen stage foo xam ne man jàpp naa ne. bon ñu bëri ak may wax sax waaye du ma ne dama ko bëggoon waaye dama leen a ñee ñoom. Mhm. ñoom ñi nga xam ne jotoon nañoo dem kaso. ñu ko leen ñee laa ndax man loolu rek moom mànk te loolu dafa am lu mu lay. Mhm. dinañ ci ñëw. Euh, mhm. jariñ. kon ñooñu nga xam ne ñi ngi tëju ci réew mi xalaat bàyyi xel lépp soo bëggee yàq seeni wax da ngay def ndànk parce que gàcce da lay gaaw a dal. loolu laa bëggoon a wax tey ci li nga xam ne. mooy ndoxteelu campagne bi. voilà mooy mais yeneen candidats yi seen campagne ko nga ko gisee. ak euh, gis nañu aussi ci euh, campagne bi sa wolof yëpp benn caméramanu RTS image bi bu ma ko <laughs> bu ma ko bitee mën a maye comme ça euh, ñu xam ne ki yeboon caméramanu RTS bi sa wolof moo ko yeboon mais gis nañ aussi temps d'antenne bi nga xamante ni Sénégal dafa defoon ab communiqué ne Jomaay du ko fa am finalement gis nañ ni ki dem Jomaay jàll na fa même bu fekkee waxul comme yeneen candidats yi ñuy waxee profito wala ci ñetti minutes yi ñu leen bay wax seen programme mais beneen forme la ñu ko daal di defee maanaam meeting yi nga xamante ni ah. amoon nañu ko moom la ñu daal di jël teg loolu si ban jàngat nga ciy def ak naka nga def ba yëpp caméraman RTS bi ci sa ginnaaw waaw comme li ma lay wax nii rek xam mm. nga voilà gis nga loolu maa ngi ko fàtte woon mm. kon lii rek li may waaja wax nii day daal di dëggal li may wax ne ci mm-hmm. côté violence dëgg la sëf na xëy naa euh, dem gis keneen sëf beneen moto moo sëf caméraman RTS am na mm-hmm. ci benn benn ñoo xam ne ba léegi te loolu it wax dëgg yàlla